وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وولاه آمين يا رب العالمين يا العالم يسر المسون ubile mbooti bamba woon sëriñ siidil muxtaar yàlla la may sirul masoon ubbil la mbooti bamba woon sëriñ bi dellu la jox sañ-sañ ba woon jagleel la siruy xarnu bi sëriñ sidil muxtaar seex sidil muxtaar seex sidil muxtaar seex siidil muxtaar muridi ana ku sopp jàmbaar ja seex siidi muxtaar yàllaa may sirul masoon ubbi la mbooti bamba woon dellu jox sañ-sañ ba woon jagleel la siruy xarnu bi mboolem murid yi leen ma wax ci sëriñ seex ibnu lemin baatin la feese ku ko miin wax koy mbiram ci xarnu bi jumaay tuuba juróomi sororo fi ne woon ndeke ci baatin des na woon mu indi ñaar ya fi desoon amul moroom ci xarnu bi seex siidi muxtaar mbakke yàlla may sirul masoon ubbil la mbooti bamba woon dellu la jox sañ-sañ ba woon jagleel la siruy xarnu bi sëriñ siidil muxtaar haabil la haalim la borom wilaaya la Sidi Muxtaar du moroom amul moroom ci xarnu bi jaaraama Mbàkke yaa nu yéem lewet ak muñ na xiim moo mën a boote yaay karim bégalal xarnu bi xawliya laa ilaha illallah muhammadun arsalahul ilaaw sëriñ Sidil Muxtaar nee masaalikul jinaan mi ngi ci sowu ñi nga naan fii maxribay nii la ñëwoon jumaa ji mooy am ci sowub xarnu bi guy masaalik yaa finaal jumaa ji rëy nga finaal def na ci milliard def na ci milliard def na ci milliard ci alal cay Mbàkke raw na xarnu bi Sëriñ Sidil Muxtaar sañ-sañ nga yor fii kulliin Muxtaar Mbàkke amul moroom ci xarnu bi baq ya yaa ko yeesalaat andi ko Tuubaa rafet na yaa bégalaat mboolem juliiti xarnu bi Sëriñ Siidil Muxtaar Sëriñ Siidil Muxtaar murid yi dee leen jaajëf jaajëf Sëriñ Siidil Muxtaar ana ko sapp baayu Seex Mustafaa Mbàkke màggaleen Seex Siidi Muxtaar jërëgeen jëf man soma dee as gora bu buñ tuddee sëñ di Moxtaar rek ma yëngu wallaahi ndax loolu defal na ma ko ci àddina wallaahi wóor na Cheikh Ndiaye mii dëgg la sëñ di Moxtaar mhm. jàngal naa ko ba mu daanu summi garaam bu bi mu soloon solal ma ko Cheikh Ndiaye ngi nii toog ndeysaan taraanga ju ne mu defal ma ko ndeysaan yàlla xam ne ne tey laa jóge bitim réew dagg biyee ngir moom ndeysaan ndax sëñ Sidi Moxtaar du ma ko fàtte ci àddina dëgg la yàlla na ko yàlla fayal amiin yàlla na yàlla taas ci barkeem amiin yàlla yàlla dolli ay ngëneelam amiin mboolem li mu def ci yiw wa ko sëñ Tuubaa di fayee ci bésu tey bi yàlla wal ci àdduna bi yëpp amiin yaa rabbal aalamiin moog mboolem kilifaam yëm yëm bokkaloon Masaalikul Jinaan sëñ Mamadul